bëgg ñu ni leen waaw góor ndaxte tey jii la vérité moom mooy képp kuy taxaw di tagg Sonko naan Sonko yaa baax ci réew mi yaa fi gën boo waxee leneen loo xam ni bokk ak ñoom gis-gis ñu bëgg la saaga bëgg ñu loolu aussi tamit mën ta wéy ci réew mi d'accord euh, ñu jàll directement suñu deuxième euh, sujet di attention euh, politique joue t à se faire peur ah Pape Amadou pour ubbi sujet boobule j'aimerais quand même demander ndax li fi xew diggante mardi ak léegi nekkuñu di jouer avec le feu bon ça fait longtemps qu'on a commencé à jouer avec le feu. Comment? dans ce pays là. Euh, xam nga fii monsieur Guèye terminé naan réew mi boo waxee lu neex Ousmane Sonko ñu tàccu la boo waxee lu naq naqadi Ousmane Sonko ñu saaga ba ci journaliste sax dans leurs analyses dañuy éviter di dugg ci benn analyse ci Ousmane Sonko. alors que tous les leaders d'opinion sont pareils dans l'analyse gis nga booy analyse bu passion warul la jiital la raison moo war jiital parce que am na benn terme bu ma naq di nga bañ ma balaa may ñëw ci sa question on a toujours parlé dans le cas Adji Sarr Ousmane Sonko on a toujours parlé de complot d'État mais c'est un terme inapproprié il ne s'agit pas de complot il s'agit tout simplement d'un acharnement sur une personne point pourquoi maintenant les gens se sont acharnés sur cette personne parce que nag mbir da nga koy as ñaar euh, nga may ma nga may ma rek si si vous permettez mm-hmm, mm-hmm. parce que mbir da nga koy atte avant bilan et conséquence et après bilan et conséquence tey ñuy taxaw ñëpp naan Ousmane Sonko dossier Adji Sarr Ousmane Sonko complot d'état la bu ñu doon samay élèves dem naan toog leen ma jàngal leen c'est un récit dans un récit muy feuilleton Adji Sarr Ousmane Sonko y a ce qu'on la situation initiale la situation initiale mooy bi nga xam ne dara amul mooy Ousmane Sonko génn na këram jël otoom di dem di maase wu ci salon aji Sarr benn yoon ñaari yoon ñetti yoon boobu dara xewul la situation initial mm. boobu kenn waxul kenn xamul parce que moom la ak yàlla c'est sa vie privée. Mm-hmm. comme Macky Sall bu subaa bu takkoon jabar suñu yoon nekku ci Sonko bu takkoon jabar suñu yoon nekku ci Massamba c'est sa vie privée. Mm-hmm. alors donc la situation initiale l'instant t égale zéro au moment où tout était calme kenn waxul complot kenn waxul dara. Mm-hmm. moo taal otoom dem di maase wu ci. il y a eu perturbateur la deuxième étape du récit l'élément perturbateur mooy bis bi Adji Sarr ne yow kat da nga ma violé dem porter ji plainte bi élément perturbateur bi déclenché wu nag la moo ci des les péripéties. et dans les péripéties du traitement de l'affaire foofu la état bi dafay yëfu cuune l'état s'est acharné sur une personne dans une affaire privée mais il ne s'agit pas de complot d'état cuune wu ñu ànd ak Macky ci loo xam ni seen yoon nekku ci ils ont dit que ni dugal ci seen loxo yàqamti c'est pourquoi je dis que les gens qui sont autour du président Macky Sall ils sont malins mais ils ne sont pas intelligents donc personne nu nous parle de complot il s'agit d'un acharnement dañu juum ci seen démarche jekku nañu seen adversaire ñun xaar ñu rey ko et maintenant dans les péripéties tey ñu ngi jëm foo xam ne ñu ngi naan procès dans la résolution du problème boobu mooy quatrième étape du récit fan la jëm ak la situation finale. Mm. donc pour dellu si sa question on pense à se faire peur gis nga fi may wax ak yow nii boo demee ay nitu Ousmane Sonko ak nitu Macky Sall ña ngay toog di naan ataaya di yëy gerte. vous savez boo jàngatee situation politique Sénégal fekkee yu bare gis nga tension politique yëpp ci waxtaan lay mujj ma jox la benn njàngat bu ndaw. pensez-vous mais tension bi quand ak bi fi daan am wute na. non xam nga bii la mooy problème bi. Mhm. bii dafa am ñaar yu ñëw yokku ci xar mi karaw xam nga mooy lan. mooy pétrole bi ak gaz bi. tey jii tey fi may wax ak yow nii y une pression internationale intense. sur le président Macky Sall il y a une pression internationale intense sur le président Ousmane Sonko xam nga pour lan ah, mhm. pour ñu toog ñu waxtaan parce que tout simplement aujourd'hui mhm. qu'on le veuille ou qu'on le qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas Ousmane Sonko du sax phénomène c'est une réalité booy bi actuellement mooy bombe c'est le patron de l'opposition c'est lui qui empêche de dormir à l'état maintenant nag am na foo xam ne état bi jekku na ko fa am na foo xam ni tamit na fa état bi Macky mu ngi la république Sonko mu ngi gérer la rue publique et que aujourd'hui bailleurs de fonds yi particulièrement la France dans le cadre de l'AFD suñu premier partenaire financier intérêt yi am du nangu Macky Sall ak Ousmane Sonko mbëkkante seen intérêt avant ñuy xalaat sax Sénégal de parce que lii li ma lay wax naan actuellement fii wuri bi toll nii nii mhm. Sénégal mhm. non du yëfu cuune yëfu mag la carte mag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg malheureusement nag comme on dit ñii dee carte bi baaxul dara ci ci ndaw ñi parce que fitna bi quand même euh, Aliou Sow mu ngi mu ngi euh, mu ngi baax de partout euh, est-ce que dinañu am procès équitable bu fekkee lii war dina continuer. waaw que duñu dinañ am procès équitable mais dañu war a am procès équitable te ci biir procès ba dina leer ni dafa war a équitable parce que sénégalais yi dofuñu. dañu su fekkente ne acharnement bi Pape Amadou wax léegi léegi am na ci. am na ci dossier bi. man man man man bëgguma wérante ci ay acharnement. xam nga jouru procès mun nga sax prouver ndax acharnement am na wala amul ca jouru procès ba mun nga prouver ni acharnement am na wala amul acharnement gis-gis la ak sentiment di nit ki war a mën a am en général pour euh, euh, euh, pour se défouler pour se défouler tout simplement nit ki mu ku nekk mun nga ne dañu la acharné kii mun na keneen mun na ko wax keneen mun na ko wax moi je pense que ni li xew mooy état bi du sax état bi c'est donc ce sont des gens qui sont des hommes politiques et qui sont du côté de l'État et qui sont en train d'aider boo xam ne dafa dafa porter plainte benn nit boo xëyee liggéey ba wàcc am nga droit ànd ak Pape Amadou wala nga ànd ak Pape euh, euh, wala nga ànd ak Balla Gaye wala nga ànd ak Aïcha yaa xam selon li li li ngay dund ak nit ki lenn kese la mm-hmm. mooy y a des gens qui sont au côté du pouvoir am ay ndombol tànk di jàppale aji Sarr pour x raison ñii dañ ko yërëm ñii dañu bugg fayu ci Ousmane Sonko ñii dañoo ñii ñii ñii ñii dañoo jëppi Ousmane Sonko ñii dañoo bëgg Ousmane Sonko daanu ñii Ousmane Sonko daf leen di xaj euh, xatal donc forcément ku nekk am nga say raisons pour jàppale Adji Sarr. comme déglu ma. Mhm. comme. Mhm. mu am ñu nekk ci côté Ousmane Sonko di ko jàppale. Mhm. di ko jàppale pour x parce que espérer nañu un jour. ci laa bëgg ñëw tamit parce que mhm. tamit ni am euh, Adji Sarr amee ab jàppale. jëmee peut-être ci nguur gi soi-disant xamuñu kan moo koy jàppale. noonu la amee Sonko aussi amee jàppale jëlee ci population bi. comment comprendre ce qui s'est passé à Ziguinchor. et loolu waruñu ko romb nii rek. c'est quelque chose pour man boo xam ne dañ ci war a taxaw. analyser ko parce que tamit ay jeunes yoo xam ne mm-hmm. taxaw déterminé barricade kër Ousmane Sonko mais mais xam nga xam nga barricade sax nga dul yoon. barricadé parce que euh, dañu nekk dans une république où li ñuy njëkk li ñu njëkk li ñu njëkk jox comme droit mooy le droit d'aller et de venir fu la neex sur l'ensemble du territoire sénégalais yow Aïcha amoo droit tey génn Walfadjri jël say bantak say bagages sànni ko ci diggu tali bi nga ne fii kenn du fi jaar parce que tali bi moomuloo ko dañ ko bokk am nga doon nag taxaw ci buntu kër nit waaye taxaw ci tali baare ko jël ay bagages teg si nga ne kenn du romb fii loolu ci république warul am ku ko nangu ak ku ko nanguwul fii akulaay taala moo fi am. ci lay nag ci la ah, ci la acharnement boobu du ñëwee nag. parce que njortu ne peut-être dañu am acharnement bu ñu gàll. ci ndoddu seen leader. moo tax ñu taxaw ne mais njort bi xam nga mooy lan waaw mais c'est normal parce que dañ ko bëgg. mais en réalité doo affaire politique affaire dem la bi mbir am na man suñ ma suñ ma loolee suñ ma porté plainte ci mbir. mu wóor ma ni man sama aqulay tàllal defuma ko damay dem prouver surtout que ma am avenir ci réew mi mm-hmm. am avenir ci réew mi damay dem taxaw ca tribunal ba wan sénégalais wan ñi jàkkaarloog man wan samay euh, samay samay samay adversaire que ni man defuma dara je vais le prouver parce que non seulement moi je ne suis pas bête parce que fi ma toll ba am autant de sympathisants dans ce pays là te tudd Ousmane dégg nga ma yëgle autant dans ce pays. Mm-hmm. tudd Ousmane Sonko di ko reyante nekk élection présidentielle jël troisième loolu man en tant que Ousmane Sonko man du ma nangu ku ma ko yàqal pour ay accusations fallacieuses entre guillemets. xam tax ma wax loolu. Mm-hmm. fallacieux entre guillemets parce que dara leeralagul kenn. waaye li ñu war a li ko fi ko war a prouver. Mm-hmm. mooy dem ba biir tribunal. régler ko wan Sénégal y' vous avez des avocats des ténors du barreau qui sont avec vous yow nga lépp li fa nekk page par page euh, phrase par phrase page par page ngeen circuité ko liggéey ko xool vidéo yi xool audio yi lijjanti ko wax luy dëkk mu leer terminé sénégalais dofuñu xam ne ñu ne de waaw d'accord euh, euh, ah, Balla Gaye depuis deux Sonko tey ñu gis ni que mbir mi dafa dem ba mujj compliqué déggu ci ay tension yoo xam ne day naka commencé woon na sax depuis mars 2021 mais là on voit que day gën a yokku ak li xam ne ni xew na Ziguinchor fan yi ak sax Dakar yow ngay jeune bokk ci serviteur la moo ci nekk seen position. ñun suñ position mosu varié euh, fañ le président Pape Djibril Fall fi mu taxawoon démb ak bërki démb sur les ba léegi ci la ne. gëm ni euh, l' état en tout cas ni ñu ko gisee c' est un euh, boo xam te ni c' est un état de règlement de compte et d' enrichissement illicite ñun loolu lañ gëm képp ku yoru nguur li ngay njëkk xalaat mooy fexe noo ci amee alal. beneen bi ci des mooy lépp luy opposant nga xam ni kii mën na la sonal nga fexe koo faagaagal moo tax daanaka ngay gis yenn réticence yi nga xam te nii ñenn ci ñi nga xam te nii ñooy xëccoo réew mi mhm. des fois dañ koy am moo tax ñu ni la justice sénégalaise am na occasion pour setal deram mhm. parce que tamit bu fekkee dossier boo xam te nii c'est un dossier politique dootuñu xamante notre justice là aussi il faut que ñu fañ ci taxawoon démb ak bërki démb rek lañ ci taxawoon wax ni juste Sénégal am na occasion pour setal deram ci yii ñu koy jiiñ nan ni euh, Macky Sall moo nekk ci ginnaaw donc li ñu bëgg moom mooy ces de Sénégalais qui ont un problème ñu war a dem devant la justice mm-hmm. ngalawaay nañu créer toutes les conditions ba nga xamante ni toutes les parties kenn ku ci nekk di nga mën a am assurance que ni boo fa demee le droit sera dit parce que loolu dong lañ soxla d'accord mm-hmm. beneen bi ma ci bëgg a yokk rek mm-hmm. bala may wax moom mooy jafe-jafe yi nga xam te andi mooy tension politique bi et ça ne me réew moo xamante ni dañu toll ci tabax ko muy un pays en construction ñu mën a toog une semaine kenn du jàngi mais loolu ku mu ku mu tiitalul man damay xaw a jaaxal. Mm-hmm. réew mi une semaine fële ca Ziguinchor. une semaine tey je sais que ni semaine bii ñëw également noonu lay demee te ça c' est seulement l' éducation nam yeneen secteur d' yi boo ko jëlee doon la mel. yéen ñii sax pour ngeen ñëw ci pour liggéey si fi xam naa ne semaine prochaine ça va être mais loolu soxna si il faut que ñu taxaw wax ci. d'accord alors Pape Pape Amadou très rapidement qui pour apaiser cette tension là parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps dafa am plus bon qui pour apaiser cette situation je pense que aujourd'hui voilà, Sénégal mos na mos na am toujours ay sapeurs-pompiers waaye xam nga président Senghor dafa doon wax ni on ne confie pas une entreprise de une œuvre de construction à une entreprise de démolition xam nga mënuloo ñëw tey xale yiy dee dee gratuitement parce que am na loo xam ne man opinion bi muy F24 ak société civile ak kuy sénégalais ak kuy doomu aadama cette violence gratuite des forces de défense et de sécurité sur les manifestants luy ndayam cest dire ndax policiers dañ leen jox droit et de vie mort sur des manifestants dañu leen leen maintien de l'ordre des bien et des personnes mais bu ñu gisee ay balles réelles ni ñu gisee ñuy toroxal ay nit mais koo mënoote di dugal ci kaar sànni ko comme ay bay ma bu ñu nee suñu police bi dañuy professionnel ils ne sont elle notre police n'est pas professionnelle notre police elle est violente parce que aujourd'hui tey mais boo xoolee parfois yow li indi li suusal xolu nit ñi loolu moo tax Ousmane Sonko bari ay partisans je dis que les les les les les les les les les les conseils du président Sall sont malins mais sont pas intelligents. parce que nit ñi bu ñu gisee violence bi mais yëfu yëfu bàyyi ma ma ñëw ci sa question pour terminer mhm. gis nga nit ku toog buntu këram am ay militant lan moo mën a justifier tey ñun dem leen ngeen songu kër Ousmane Sonko lan moo ko war a mën a justifier ban intérêt la ci état bi am trois morts am ci ban intérêt lañ ci am ñu tëj école tu nous parles d'émergence tu nous parles de pays en construction on est à quelques mois de la production de pétrole et de mhm, gaz mhm. aujourd'hui la tension au niveau de la sous-région mais est tey kàddu diine yi dina ci am wàll par rapport ak apaisement wu tension bi xam nga kilifa diine yi ñoom mën nañu wax ci kaw mën nañu wax ci suuf ñu ngi dox gis nañu bërki démb sëñ Mountakha yónni na porte-parole dem ci président Macky Sall mhm. waaye que président Macky Sall neex na waxal parce que tam dafa am loo xam dañ ko jàng en science politique comportement yii ñu gis depuis mars 2021 éclatement affaire Adji Sarr Ousmane Sonko te lii yëpp jaru ko woon que état bi moo def ay erreur mais bu fekkoon bàyyi na ko fa mu nekkoon kon li du am mais est que tey ji tey boo xoolee tey nit ci dee ñëpp affaire bi li mu jël nii yëpp est que tey ji tey nit ñi dem nañu ba situation bi dépassé mm-hmm. dépassé parce que xale yi